mars bi nag nar a doon nag seen gàmmu de la part de tous les baro baro waaye tamit di nuyu dédicace à Omar Diallo gérant cosmétique bu nekk foofu euh, ca kër Tafa Ndiaye Yaraax koo ñu ASC Mbalax fan si Kouthia la de Yaraax euh, ñu koy nuyu Mame Fatou Ba Fass Mbaaw la dëkk Assane Ning Aliou Diallo Oumou Ndiaye depuis Yaraax Ndaata Gueye ak Ndiaye Chéri Boubacar Diallo depuis Espagne di nuyu tamit Adja Khoudia Fall depuis Tivaouane di am mbégte contentement ci xaj Khadija Mbeng fille de Mam Saliou et de Ndeye Fatou à Yoff mère Sala Diop euh, à Ngoy Seko di nuyu tamit Rocky Diané depuis Cambérène mi Chéri Fallou Cambérène di nuyu tamit Ngone Ndiaye borom salon bi ak Ndeye Ngone ca Louga de la part de Fatim Diouf euh, salon Awa euh, Wade Yaraax booru géej tous ses élèves ñoom ñëpp ñu ngi leen di xamal nag principe de jeu Balla Gaye Eumeu envoyé SMS ci 24 50 choc ngay envoyé ci 24 500 war a nga woote ci 88 628 65 65 bés bu nekk ñaar fukki junni yi mooy jóge ci loxo TFM dem ci ki nga xam ne mooy amateur bi enveloppe bu 100 000 francs entrée yoo xam ne VIP entrée simple découverte ak couverte télévision Smart TV ak ay jackpot boo xam ne toll na ci un million lépp yëpp nag boo ko xaymaa muy 5 millions ci ay cadeaux yoo xam ne war a gagné kon di leen envoyé choc ci 24 500 mu ngi nii 100000 francs yaa ngi nii xaalis ci boppam moo neex gis ngeen ko 100 200 300 xool 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 90 000 100000 francs ngi nii bés bu nekk day jóge ci loxo gars yi daal di dem xaar ma siyaar ko. waa mais copain mais copain mais wuy sa sa yeneen copain xaalis ay euro ak ay dollar xanaa yow ñooñu ñoom ñoom ñoom dañoo gëj a dugg sama poche bi waaw doo leen woo nag ndax dama leen namm waa ji waay ah <laughs> jërëjëf waay wax naa la yow noppi rek noppi rek bu su ma amee doom xaalis laa ko tuddee dix mille laa ko tuddee eh, sama waay nga yow baax <laughs> xaaral mu nuyu la baax léegi ñu dem seeti Yaya Jammeh bi nga xam ne nag ma ngay ut tànku jàmm diggante Macky Sall ak Ablaye Wade moom ca boppam mu ngi ut ay pexe pour jéem a dendale ñaar ñii ñoom ñaar ñu ànd juboo ndax wax dëgg yàlla nee na ñoom ñaar bu ñu juboo bokk na ci li mun a suqali euh, diggante Sénégal Gambie mu gën a tax ndax ñoom ñaar ñëpp ci biir régime am moom dund na ñaar président yi moom Yaya Jammeh ñu seeti ko ca Gambie nan lay fexe ba ñaar yi président yi daal di ànd bokk nday bokk baay. salaamaaleykum Gambia bankoo kan bu dee ci joolaa mu wax jéem ni saafu bugur tur bu gaar Gambia nu ñu teeru sunu président docteur Abdoul Aziz Yaya Jamus Junghun Jame ngal Yaya Jammeh om ko do ka jamoro kati Macky Sall ko di Ablaye Wade Ablaye Wade awrem ka sankana mi di Macky Sall ji sofor manji kankanu ka jamoro jajak sang Ablaye Wade enina yola de mamman yo Laila mamman yo ana lege na wo pulong habola usum lisum Macky Sall enina yola de la busuli anji katen a président o Yaya Jammeh mana sankenu maleget wala karam de la santa dugula fay son excellence soo gisee ma sargal jigéen jigéen ñi laa gën a wóolu ka góor ñi ndax jigéen ñi dañoo am yërmande mhm. dama ko xool suma yaay Jaliba amu yow da nga di faral dem Sénégal di dem mhm. di play di ñëw jama boo amee Sénégal soo demee da ngaa liggéey ndax da way ñu fay la kon diggante Ablaye Wada ak Macky Sall dafa jot pour ñu ñaam ne ñooy seen ay dëkkandoo ñu boole leen ñu bokka ndey ndax Macky Sall bu jubee Ablaye Wade Ablaye Wade juboo ak Macky Sall loolu dinaa suxat suxali diggante ndax dëkkandoo bu amee ay si sa dëkkandoo da nga jox tànk jama waaye doone tekk tekkaaral di ko seetaan wax naa keroog ne sa xaritu noon sa noon la xamalu tax ma lool parce que duma nangu man benn doomu Adama ñëw fii Gambia naan Macky Sall liggéeyam bi muy def daka daka mbaaxul déedéet xëy na kar ñoom ñooy def loolu di bàyyi ay nit taxaw di wax ne yaa jaame li ak li waaye man du ma dox ci loolu li ma bëgg a yaya jali ba ah, mhm. su may dem ma sant la ko nga tëjee ko mhm. li ma bëgg jaga mhm. man yaya jaame mooy Macky Sall la mooy xale Abdoulaye Wade mooy mag te mag dafay suturaal xale waaye xale tamit dafay suturaal mag lu ma mun a ak luñ ko mun a wax na fàttali ko Demba xam ne dafa metti woon torop ndax man sobuma laajte naa ñu ne nekkul woon sax ci parti Ablaye Wada ci beneen parti la nekkoon kon bu ñu ko yaatalee ba mu duga ñu koy boot di ko tete ba mu am daraja na fexe bañ a fàttali ko ndax ñoom seen waykat yi way nañ ko uhuh. Ismaïla Lo wax na ko uhuh. bul fàttali ko da soxor man su ma fàttalikoon lu bon yaa ne ñu ma ko di def kon kenn du des. kon man du ma woo waa Sénégal damay woo président bu Mauritanie Abdoul damay woo président Lansana Condé damay woo président yi nekk Cap-Vert ak roi buuru Maroc Mohamed VI woo Ondimba nga xam ne moo jiite Gabon ñun ñëppa ñu ànd ñu fexe Alassane Ouattara ñu taxawal juboo diggante Abdoulaye Wade ak Macky ndax jot na ndax waa Sénégal bu ñu fexewul loolu am li ci nag bi mu naatu ga Gàmbi mu naatu ga Mauritanie keba kaninke keba kaninke kaninke dama kontaan parce que dama bugg a ñaari daka ñu bokk a ndey nekk Wada ak Macky Sall dafa jot ñu joxe loxo pour seen xol yi mën a ànda mhm. ndax jama ci la bu ñu indi coow nañu ko def ci fula ak fayda. na kilifa aada ak diina yi dox ci tànka mhm. jama ndax tamante waxante lu ñaaw damante saagante dara jaru ko ku nekk na nga xam fi nga xam ne fanga nga tàmbalee Abdoulaye am na fu mu tàmbalee Macky Sall am na fu mu tàmbalee mooy xale na dem ak lu mu mun a moom bu weetee kese ci nekk kese ak yàlla xana xam ban yoon la war a jaar. waaye ñun because it is president Gambia people. it is a legislative president people Mauritania. because it is my people. what about it is a loving it is my people Senegal is turning is not about what about it it is people Gambia. kon jëli baaw yëkkatil wayu jama diggante Ablaye Wade ak Macky Sall yàlla dafa leen jama ndax jama googu mooy law jama googu moo mun a tax jama am ci Casamance jama googu bu ñu bëggee Casamance am jama te ñoom amuñu jama jama du mun a am ci kaw jama ndax jama amul te jama mooy jiitu jama loo gis te jama amul ci jama du mun a am yëkkatil. la